Ibrahima Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Ibrahima Fall nga nekk président wu maître nageur yi fii ci euh, Sénégal déjà nga gis fan yi ñiy lab ci géej gi bari na si période yi yow ban analyse ngay def si mbir mi. waaw cas de yi moom dafa am lu koy indi toujours dafa facteur yoo xam ne moo koy favoriser bokk na ci euh, plage yi nga xam ne moo nekk ci grande côte bi ak banlieue bi. voilà plage yooyu dañuy woowee plage interdite te léegi seetlu nañ ne xale yi dañ fay dem di fa sangu te muy enregistré aussi ay cas de noyade ñu nag ñu waxoon ne vraiment plage yooyu comme accessible na ci population yi accessible na si si euh, secours yi donc ay plage la yoo xam ne dañ fa war a dañ fa war a teg kaaraange voilà bu ñu ko defee rek je pense que dina wàññeeku mais bu ñu ko defalee aussi noyade dafay continuer di am. d' accord léegi euh, Ibrahima Fall euh, est ce que mën nga ñëwaat ak ñun si euh, plage yi nga xam ni euh, autorités yi dañ ko tere parce que danger la yooyu yenn plage la exactement. waaw plage yi nga xam ne moom moo nekk euh, surtout au niveau de la banlieue plage yooyu yëpp ñoom dañ ko interdit dañ ko tere voilà mais aussi ñun jàpp nañ ne euh, dañu war a jël ci ay exemple ci plage Bessiaw bi nga xam ne bokkoon na ci plage yi ñu tere. te léegi bi ministre de l'intérieur bi fi nekkoon Ousmane maître Ousmane Ngom ne léegi nañ ko encadré pour xool ba xam ndax dina am cadre noyade wala du ko am bon boobu ba léegi amul cadre noyade léegi nag loolu la ñu war a lawal vraiment ci plage yu mel noonu waaw buñ ko defee rek je pense que bu ñu mettre en place dispositif rek voilà noyade yi dina wàññeeku voilà wala mos wala sax mu jaaree fa jeex parce que fii ci Dakar. Mhm. plage yu nekk si Dakar yëpp ville de moo jël initiative wu vraiment teg ci vingt six plages yëpp ay maître nageur sauveteur mhm. ànd ceeg ak la brigade nationale des sapeurs-pompiers ñu koy ñu koy surveiller de neuf heures à dix donc boobu ba léegi dégguñu fi ay cas de noyade léegi nag loolu bu ñu ko lawalee ci banlieue bi ci plage yooyu nga xam dañ koy wax inter dañ koy tere ah bu ko defee dinañ leen mën a aar ba noyade du am balab du am voilà ma dégg la sànq wax nga si privatisation des plages maanaam plage yu bëri dañ ko privatiser moo tax xale yi di dem ci euh, yeneen géej yi nga xam ni dañ ko tere euh, lan pour yow privatisation bi dañ ko war a dindi wala lan nga si bëgg exactement waaw privatisation bi nag bokk na ci facteur yu favoriser noyade lu doy waar la waaw lu doy waar la ndax euh, bu fekkente ne da nga autorisé woon ay plage après nga jékki-jékki ay nit di ko tabax di ko dëkkee donc loolu lu doy waar la bu ko defee nag jeunes yi dootuñu amati ñu dem léegi nag dañuy obligé ñoom ñuy dem si plage yi nga xam ne dañ leen tere voilà privatisation boobu ñun bi ko dénoncé euh, gis nañ njiitum réew mi def ci sorti voilà wax ci ne donc loolu dañ ko war a arrêté waaye seetlu nañ ne ba léegi daal nit ñaa ngi di tabax ci boru géej gi littoral bi. Hmm. te loolu doy waar la waaw moo tax nag loolu bokk na ci li gën a favoriser sax cas de parce que bu fekkente ne plage yi nga xam ne ñëw nekk ci grande côte bi ñoo fi des voilà te ñoom ñu jàppee ko plage yu ñu tere te jeunes yi di fa dem di fa desere ah privatisation bokk na ci moo tax autorités yi compétentes yi il faut ñu jël ay mesures voilà ñu ñu ñu dindi loolu. ñu ñëw tuuti ci liggéeyu maître nageur euh, maître nageur moom lan mooy liggéeyam exactement si si plage. waaw maître waaw nageur nag moom liggéey la comme liggéey professeur bi comme liggéey médecin yooyu. voilà ñoom dañoo métier la boo xam ne aussi dañuy sauver ay nit ay bakkan voilà deformation yoo xam ne yu bari voilà bu fekkente ne dañu nekk ci géej gi su su nit di ñëw dañ leen accueillir sensibiliser leen mais également bu intervention amee aussi ñu intervenir voilà donc loolu loolu la ñuy def ci plage yi du leen sensibiliser bu baax par rapport ak danger parce que plage moom dafa am lu ñuy digle ak lu ñuy tere donc ñoom di dinañ fexe ba ñi ñi nga xam ne ñoo fa ñu leen koy digal bu leen tere aussi ñu leen koy tere voilà. recrutement wu maître nageur yi naka lay demee exactement. waaw bon fii ci Dakar euh, vingt six plages yi nga xam ne moo nekk ci Dakar maître nageur fi nekk ñu leen recruter mooy la ville de Dakar. Mhm. voilà moo moo moo recruter ay maître nageur une centaine de maître nageur. Mhm. voilà prépositionné leen ci plage yi. donc pour ñu mën a aar euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy sangukat yi. voilà moom bu fekkee ne au niveau amul benn. vraiment mesure boo xam ne jël nañ ko pour loolu. Mhm. donc ñuy ñaan autorité rek parce que sécurisation des plages moom compétence transférée la ñu ngi ñaan autorité yi ñu jël ay comme ni ko ville de Dakar defee voilà euh, def ko ci lawal ko ci yeneen plage ba nga xam ne dinañ mën a encadrer nit ñi ba lab du am. mais mais est-ce que maître yi ñu ngi leen di fay salaire bu baax est-ce que condition wu liggéey bi tamit yomb na. waaw euh, maintenant yéen moom ñu ngi leen di fay ndax fii ci Dakar. Mhm. am na ci plage yoo xam ne vraiment euh, am nañu ay permanent mais également am nañu ay contractuel mhm. waaw ñu ngi leen di fay te bon en fait du du du sax en fait ñuy wax li leen di fay mais ñu ngi leen di fay bu baax. payoor yi daal baax na euh, donc. Mhm. est-ce que am na suffisamment de maîtres nageurs au Sénégal. waaw ah, ñun nag bi ñu defee recensement bi ñun li ñu ñu jot a recensé mën nañu trois cent deux euh, maîtres nageurs yoo xam ne ñu Sénégal. Mm-hmm. mais fii ci Ndakaaru <coughs> am na am nañ euh, ville de Dakar recruté na une centaine de maîtres nageurs yoo xam ne déployé na leen déjà sur place. centaine de euh, presque cent nageurs fii à Dakar. voilà ci Sénégal yëpp région yi. si Sénégal yëpp am ñun recensé nañ fi lu ma trois cent deux ma ki mais météo yoo xam ne ñu ngi fi. ñu ñu ngi fi recruter au niveau national. au national te xam ne am nañu formation. waaw ay qualifié nañ te maire yi ñu ngi leen di fay normalement. ah waaw am na maire yoo xam ne moom jëluñu engagement euh, recruter leen. Hmm. mais maire yu bari aussi jëluñu ñoom ñoom dispositif boobu mettre wuñ ko en place waaye mooy li may wax rek il faut que ñu reclasser plage yi pour ko defee plage yi ñu mën ko encadrer pour ko defee maire yi mën leen recruter bu fekkee dafa am interdiction bi. donc maire yi dañuy mën a jël ndax dañuy xalaat ne li autorité bi dañ koy autorité yi dañ koy interdire. Euh, mairie Dakar Barthélémy Dias euh, ni gini keroog rek am na don de matériel bu bari boo xam ne maye na ko jëm ci euh, xeex noyade yi matériel yooyu lan la ak ñan la ko jox exactement. waaw ñu ngi gërëm Barthélémy monsieur Barthélémy Dias bu baax a baax ci geste bu mu def geste bu noble la wax dëgg yàlla parce que ñun. soxla woon nañu matériel boobu parce que matériel boobu dinañu permettre quand même ñu def suñu liggéey correctement voilà bu fekkente ne aussi euh, intervention am na dinañ ko mën a utiliser pour ay intervention voilà matériel de dernière génération la yi ñu soxla yëpp wax dëgg yàlla euh, monsieur le maire Barthélémy Dias na ko pour ñun donc mu ngi contribuer bu baax euh, ci ci ni ñuy def ba lab bi wàññeeku. donc matériel bi maître nageur yi la ko jagleel. maître nageur la ko jagleel waaw. d'accord vraiment ñu ngi ko ciy remercier bu baax. Euh, ci tënk rek euh, tey jii pour yow lan mooy solution vraiment euh, pour noyade yi lab bi wàññeeku bu baax a baax. voilà pour noyade yi wàññeeku nag il faut que plage yooyu nga xam ne xale dañ fay lab lab te amul benn kaaraange ñu teg fa kaaraange. voilà loolu taxoon ñu waxoon ministre l'intérieur pour ñu reclasser les plages ci liggéey boobu la ñu nekk fan yi xam naa ci fan yu néew rek dinañ dem ci terrain bi ñu reclasser les places comme ça maire yi nga xam ne dañoo bañoon recruter ndax introduction bi am dañ obligé recruter pour envoyer euh, sécurité ci ci ci plage yooyu nga xam ne dañ koy woowee plage interdite loolu daal je pense que moom mën a wàññi euh, wala mu jeexal euh, lab yi voilà Ibrahima Fall ñu ngi lay remercier bu baax a baax maa ngi leen di gërëm bu baax aussi may fàttali yow yaa jiite association euh, des maîtres nageurs du Sénégal noonu la. waaw. merci beaucoup.